Euh, ñun waa FRAPP li nga xam ne moom la ñu mën a njëkk wax ci mbir mi xam naa Aldemba Mbaye dina si ñëwaat ci kàllaamay euh, wolof euh, Fat Bintou moo doon wax ci seen tur ci kàllaamay nasaraan ñun waa FRAPP li ñu mën a njëkk wax ci mbir mi mooy dafa amoon benn yëngu-yëngu te daanaka yëngu-yëngu boobu jeexul bu ma waxee yëngu-yëngu mooy campagne ndaxte FRAPP li ko mooy dafa am ay campagne yu bëri campagne ci France CFA campagne ci accord de partenariat économique euh, campagne ci euh, force de défense et de sécurité yi euh, ci la bokk CFA bi mom la ñu ci xeyna gëna pour la souveraineté monétaire France dégage ak ñom seen nonu lañu amé won nous ñun wa frappe... ñu am ko ba légui ben campagne est... xamné ne mu ngi njëkkoon tuddu set setal set setal ngir set setal suñu ay yoon ngir set setal suñu ay espace public ndaxte FRAPP dafa set setantal mu gis ne bëri na ay bërëb ay école ay yoon ci Sénégal yoo xam ne dañ leen jox ay turu ñoo xam ne dañ doon noot suñu ay maam ak suñu ay maamaat da ngay jël benn boulevard boulevard Général de Gaulle or général de Gaulle bi n'est que président de France général de Gaulle n'est woon de Afrique général de Gaulle a fait une politique coloniale général de Gaulle bi France bi Allemagne duggee France ngir coloniser France ba mu am ben patch, ñu le régime de Vichy général de Gaulle bi mou def son appel du 18 juin nous avons fait Afrique bobu ñun France mon moñu mom Afrique pour que ñu jël fi ay nit yo xam di guerre ci wetu France pour jël fi Allemagne manam ñun ñu won suñu bop général de Gaulle politique coloniale politique néocoloniale la amoon kon koku warul am ben place ci Afrique warul am ben yoon ci Sénégal ben yoon ci Afrique bo war nañ ko jox Afrique fi ci Sénégal

am na ñoo xam ne dañ leen jox suñu turu école suñu turu place suñu turu yoon yoo xam ne nekkuñu woon xaritu africain yi nekkuñu woon xaritu sénégalais yi nekkuñu woon xaritu der bu ñuul ay jaaykatu jaam lañ woon ay nootkatu doomu aadama lañ woon ay ñoo xam ne dañoo jàppoon ne euh, ngir cere France mën tooy d'accord ñun suñu deret ak suñu ñakk moko wara sim, ñun africain ñun der ñun ñu né lolu colonisation nam day jaar ci copper français fa nam day jaar ci présence militaire étrangère madame soldat France wala soldat États-Unis yu nek biir Afrique ta amul ben soldat Afrique bu nek États-Unis ba Afrique ba Chine ak ñom seen colonisation day jaar tamit ci budget Fonds monétaire international ak Banque mondiale ñoo ñuy wax d'accord ci walu budget nak la ñu war a colonisation tamit day jaar ci walu xel ndaxte boo juddoo cim réew ñu naan la avenue Faidherbe yow boo moytuwul da ngay jàpp ne Faidherbe ku baax la woon. Faidherbe ak France rey vingt mille Sénégalais ci juróom-ñetti weer crime contre l'humanité la donc Faidherbe warul am benn place bu buñ ko tuddee tur warul nekk turandoo benn place donc suñu ndam la tey ñu am si mbégte waaye liñ ciy yokk mooy euh, ci communiqué bu. Euh, mairie de Dakar Plateau Si bu bu lire communiqué bi bu de Dakar Plateau Maire de Dakar Plateau day ñëw naan waaw ñu ngi avenue bi nga xam avenue léegi mu avenue président Macky Sall ndaxte Macky Sall nit ku président bu leadership ak ñoom seen dinañ ci Macky Sall ci président Macky Sall waaye yéen war nañ leen jaaxal am na leen lu leen war a jaaxal lu toll ni mairie mu am avenue bu tudd avenue Faidherbe nga soppi turam mais doo wax askan wi lan moo tax bëggatuloo avenue bi tudd avenue Faidherbe liiraat leen communiqué bi du ngeen gis dara aucune ligne aucun mot ci communiqué bi fii mairie Dakar Plateau naan lii moo tax avenue Faidherbe mënutul tudd avenue Faidherbe c'est mo wutale nous avons ak nous. ñun dañoo japp un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre manam askan bo xam xamul fi mu jaar ba toll fi toll bu ko xamulé bo moytuwul liko dalon demb barki ñu donc si wat benn yoon mu dafa am solo nga jangal askan dafa am solo nga cons nga profité aussi nga conscientiser askan wi ça doit être un moment fort de conscientisation d'éveil des consciences pour xamal ni ci ne yoon bi ni la tuddoon turandoom kat mo def li mo def li mo def li mo def li erreur la won sax ñu bàyyi tur bobu ba tay ji ni 2023 black out total loolu li muy wane mooy Alioune sañu sax wax ndaxte xëy na ragal na bu waxee waa France mer oo dama leen di fàttali ne dëkk bi bi feder bi cosaanoo mu ngi tudd Lille ca France Lille Lille boo fa demee am na ay doomu France yoo xam ne dañoo taxawal mouvement bu tudd ba doit tomber Lille ci boppam ay doomu France ndaxte doomu France yooyu dañoo xam taarixu Faidherbe xam ne ba Algérie la fi mu njëkk dem bi mu jógee France dañ ko yóbbu Algérie Nous fa algérien ñu algérien Algérie Sénégal Nous avons 20 20 sénégalais en 8 mois Tout monde ne dettes qui du nit ku baax même si les français la woon ni ñun deru mouvement Faidherbe doit tomber donc am 2023. donc sañu mais nous la que sañu mais ça doit être un moment d'histoire ça ne doit pas être n'importe quel moment ça doit être un moment de conscientisation d'éveil des consciences profitez wax Dakar Plateau mais au-delà tout le Sénégal ah kat fi wa frappe, fi dor, fi fi fait ndax que wax waye nak wax deug yalla do nit ku bax lolou motax lu la

à Ndoye sax sañu ko mais benen bi d'accord nañu ak Fat Bintou limu wax ne ñun buñu ñun wa nous mbir mi du mairie bi day wax commission bi commission municipale bi nga xamné espace public yi ne un moment de débat tamit un débat de que ce c'est pas n'importe quel moment c'est un moment historique mais ñoom nous ko un moment historique ça veut dire qu'en réalité à Ndoye ba c'est un colonisé c'est un néocolonisé c'est un aliéné parce que si on bëgg un moment historique c'est comme si on ne décoloniser suñu ay Si on ñu sañoon day commission bi xool leen place ci commune Dakar Plateau bo xamné jox nañ ko turu ay nootkat mu am programme de débaptisation de rebaptisation mais Dakar Plateau yépp du Faidherbe bi rek mo fa nekk turu nootkat lan moo mu yem ci Faidherbe donc euh, une démarche clientéliste politicienne fa waroon recenser place yépp ñu xamné kon ah kon ki paré na ah kon ki

plutôt Feder bu wex mo fi nekkoon ci avenue Feder legui avenue Faidherbe jox nañ ko turu Feder bu ñuul muy président Macky Sall bon Lolo, euh, mënuñu ci sori parce que lolu xeyna na euh, Dakar Plateau ña fa dëkk ña fay yeewoo euh, conseil municipal bi ñom ñoo wara xol kan lañ ñuy jox turam mais c'est déjà ben jéego la avancé la le fait que ñu joxone yone bi avenue bi turu 4 doxandeem koo xam ne da doon noot suñu mam ak maamaat loolu déjà jéego la bu am solo waaye on constate juste comme tous les Sénégalais que cette avenue portait le nom d'un Fédère blanc et aujourd'hui cette avenue anciennement dénommée avenue Fédère, porte le nom d'un Fédère noir qui s'appelle président Macky Sall euh, fi may daanelee mooy xaw ma ndax yaa ngi di fàttaliku le 17 février le 17 février de a bien passé le 17 février 2022 non a bien passé le 17 février bien passé le 17 février bien passé Ousmane Sonko n'est que maire de maire commune bu de et ay yi ñu joxoon ay turu ci biir Ziguinchor Ousmane Sonko le conseil municipal bu Ziguinchor jël yoon yooyu mu jox leen tuf ci tur yooyu mën nañ ci ràññee tirailleur africain mën nañ ci ràññee Séléki bu fa amoon fi nga xam ne duma soldats français mais loolu bi Si vous bu le Le préfet bu Chor dafa dem saisir cour suprême préfet Chor dafa saisir cour suprême pour wax cour suprême Ce monsieur le maire Ousmane Sonko bu commune bu def a ay ay place yi nga Toronto. ay tubaab yu bon la woon bu ma waxee ay tubaab yu bon c'est am na tubaab yu baax ni mu amee nit yu ñuul yu baax ak yu bon jël ay yoon ak ay place yoo xam ne seeni turandoo ay tubaab yu bon lañu woon ndaxte dañ doon noot africain yi jox leen ay tur yoo xam ne day jëmmal nit ku ñuul day jëmmal africain ak sénégalais préfet bu Ziguinchor saisir cour suprême euh, saisir cour suprême pour wax ne li Ousmane koo def c'est illégal cour suprême chambre administrative beaucoup cour suprême a annulé bépp dogal bi nga xam ne mairie bu qui jëloon ci soppi dogal yi le 17 février 2022 léegi nag wax ji mooy Ousmane Sonko defoon Ziguinchor ak conseil municipal bu la conseil municipal ak bu mairie Dakar Plateau def Dakar Plateau wax ndax préfet bu Dakar Plateau day saisir cour suprême ngir cour suprême invalider délibération ou conseil municipal ñu ngi wax askan wi nak ñu ubbi seeni gët bu politique na nga politique te dëgg lal ko politique na nga politique te dëgg lal ko xeyna politique ndaxte bëgg a askanu Sénégal seen xel jéng yi ñu coloniser seeni xel ñuy continuer di gis naan maam des maam Nous général de Gaulle fekk duñu suñuy maam duñu suñuy mbokk ñoo ñu def travail forcé bëgg askan wi des ci loolu ñuy politique politicienne préfet bu nous yóbbu dossier bi fële ca cour suprême li ben maire di soppi turu ay yoon dëgg du yoon cour suprême jox dëgg ki nga xam ne moom mooy préfet bu Ziguinchor annulé dogalu mairie bu Chor ak maire Ousmane Sonko le 17 février 2022 léegi fii nag ndaxte préfet préfet la benn kilifa la ñu am du préfet bu Chor moo def loolu de président Macky Sall moo wax ministre de l'Intérieur, intérieur mu wax préfet bu Chor na na opposé wu ci dogalu maire Ousmane Sonko ak conseil municipal bu Ziguinchor légui fi Dakar Plateau ndax ni def la même chose wala ndax yoon bi comme tuddee nañ ko président Macky Sall xeyna na turandoo bi d'accord day def politique politicienne def deux poids deux mesures kumba am nday kumba amul nday ndax li fi nara am moy maire Ziguinchor amul nday ak maire Dakar Plateau am nday mairie Ziguinchor ñak bàyyi ak mairie Dakar Plateau euh, je vous remercie ñu jox Aldemba Aldemba Mbaye wax ci wolof ci turu Dakar Plateau